yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi ma ñëwoon tey nag ziare si sëriñ bi ziare sëriñ Moussa Nawel participe ci fulku bi gannaaw bi tamit ma ñëw ci jumaa ji déglu waxtaan wi fekk tamit teraanga yi ñu fi def mu nekk lu am solo ci diine ak ci dimbalante bi nga xam ne nii yoonu murit ah, ah, ah, yoonu murit am na ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne dogal kii ku wor nga dogal ko eh, benn rek daanaka ay ajjana ajjana la ndax mën nga cee ram ñu bari te